favoriser du ñu ay mbër. barki Serigne Touba mais dañ du ay mbër phénomène mooy lan mooy ki reetaanloo ay nit di def yoo xamante ni. phénomène yooyu ñu ngi bëri di daan. ay dama bàyyi ngeen am phénomène yooyu ñu bëri di daan. ñu bëri di daan kay. non mais gars yi ñu si kaw ñoo nelaw rek ñoo xulle ba Modou Lo nekk roi des arènes. Modou toll nii Modou toll nii gars yi xulle. Modou roi des arènes da kaa liggéey da kaa liggéey. non mais béykat ma ne la ñu si kaw ñoo ñoo ñoo ñoo nelaw. man bu ma nekkoon si kaw. waaw bu baax. Eumeu Sène. waaye yow ko li ma la moom moo njëriñ nelaw ñëpp Eumeu Sène maa toog na ko mbër na mu ne naam ma ko tànk yaa ngi xeeb doo ko daan mu reetaan tàpp ma te man mi koy wax nii ba Eumeu Sène na maa jur li mu koy wax dama ko gis parce que mu koy liir si làmb laa waaye si làmb laa juddoo waaye damaa xam làmb bu baax. kon kon léegi su ma déggee si wax. kon Ama bokkul si ñi waaye di. déedéet làmb xale. làmb xale. Eumeu Sène mais la Sène wax moom ak am Modou Modou Lo jël na roi bi si si magam Bombardier moo lu ñuy wax moom mag Eumeu Sène Eumeu Sène jël na si magam si bi loo gis xale la Balla Gaye bi muy jël roi des arènes si mag la ko fekk jël ko da ngay puus sa morom ñëw déggoo sànq ma ne la bato dem bato kose la. waaye Modou Lo nekkul mag bi tax ñuy wax. waaye dama bàyyi. mag mag mag mag la. ku la magee laa la wax weer moo la doo ma bàyyi bëri ndoo mbapat waaye man ma man ma bëree ndoo ay ñoo xam ne ñoo ma mag fuuf mun ma jur nga ne ma loolu dara. yee eh, dama ne la. Ah Modou Lo magum jëmm la Modou Lo du xale. Ah Modou Lo gis nañ ah, ay quarantaine gis ay lu ne. ama magum la. ama nu mu ne eh, magum jëmm ama xale la de yow nag ama du booy. ama booy la ama judduwul laa la wax. Modou loo mën a jur ama nga naan ma ay nii. dafa mel ni sa xel daa sa digganteeg ama ba Modou Lo. mais mais bien sûr may doomu Pikine xam li doomu Pikine di dund. vainqueur yi di li ñuy dund laa xam. laa xam bu baax Pikine boo ñëwee da ngay seppi vainqueur yi. dafa am ay vainqueur si biir vainqueur ama vainqueur la laa la wax bul play bu bu dimanche nga xam li ma lay wax bu baax. waaye man li ma xaw a jaaxal ma seetlu ko. Modou fii la mujj en partie la mujj. waaw ah, moo lay wan ni kon si fii. Modou fii la mujj. daan Eumeu Sène. ama fa la mujj daan Papa Sow toog 4 ans bëriwul. waaw mais yàgg yàgg xamoon nañ dina bëri ama. ama bàyyi woon na xel Modou Lo depuis bi muy bëri premier combat am. waaye Modou Sène bàyyi woon na xel ne dina bëri ama. léegi looloo lay wa depuis kees kon te instant nii dafa ñor nii xam nga ñor na te lu ñor bi jeex na leen dimanche yàggatul ama ñëw def lu muy def parce que instant yii nii déggoo li mu la xam nga ama keroog si open press mu ngi naan leen desaloo ma leen dara yéen desaloo leen ma dara man maa leen desel ak a wér. non mais wax la si biir wax xam nga tey jii nii yow supporter bi tey jii yaa ngi am sa xol bu nice ak sa supporter bu doy si ginnaaw Ama léegi Ama lan la war a fayee mais daan rek la la mun a fayee daan kese te Ama liggéey na loo xamante ni wallaahi moom Modou Lo ji du yàgg làmb ji du yàgg de maa la ko fii bindal tig. du yàgg fan nga wékk ne njëkk làmb ji ñëw open press bu ñaar ñëpp dem naa press. laa la wax de. yow sax xel bi day dem. li ma gis open press Ama moom laa gis open press Modou. li nga fa gis moom nga gis kon yaa 10 10 nga gis. waaw 50 defal 10 ak 5. moom 10. Ama moom 10 nga naan ku moom 10 et eh, mos ngaa gis Ama toll ni si làmb mosoo ko gis. Modou mën ngaa gis mu toll nii mu toll. waaye Modou Lo nii la mos a toll nga naan ma ay nii. Modou yokk doole. yow Lo bu la mënul daan ay sànni taw sëgg ay yooyu lay def parce que mënul la daan. mais njëkk xalaat nga xeexu Ama kaw ah. be nit la daan si kaw muy Eumeu Sène te Eumeu Sène a ko may kan daan Bombardier da daan loolu mooy daan loolu la loolay daan <laughs> gis nga yow xam làmb ji na ngay kon yow yow yaa yaa ngi caaxaane làmb yaa ngi fooy làmb yow da ngaa commencé dem sa yoon de ma mais Malick Niang la ñu wax mu dàq dóor loolu mënu ko dindi te njool ak ndaama sax duñ benn kii ndaama la amra ama sut Modou Lo waaye Modou Lo gàttaayam bi nga naan ma ay ni ama lu mu tuddee Modou Lo bariwul waaw mais bariwul mais sut na ko rek ma ne la benn prix la rek ama ngi si kaw Modou mais xale ak man lan li mu bëri diggante ba Papa Sow àdduna ay rafal gan di mu puus pu puus mu tëdd. di ko nuyu bu baax Papa Sow baax la parce que maanaam dëkkul Pikine de mais nit gënu ko parce que ñi bàyyi làmb yëpp boo seetloo ñëwaatuñ delloo si waat li làmb moom Papa Sow seul laa gis mu bàyyi làmb yàggul di am staff muy liggéeyal si làmb di jàppale ay boy jeunesse yoo si jàppale jeunesse bi si wàllum si lu ñuy dund muy làmb day woo mbëri nan la ba nga diw ba nga diw ba diw war ngeen a bëre ban mbër nga mës dégg fii bu bàyyi làmb te lekk xaalisu làmb am na ñoo xam ne lekk nañ xaalisu làmb lu ëpp lu moom lu mu lekk fàtte nañ làmb te lu ñu mel tey làmb la gars yi nañ respecté làmb Papa Sow nag maa ngi sant bu baax grand bu baax la grand yow dundal amal jàmm barki sëñ bàmba bu la neexoon nga ne damay toog sama kër li ma am am naa ko tabax samay kër dal sama jàmm di dem Europe ak ñëw ba làmb xam na lu si coonoy làmb kon bu ko neexoon bàyyi mais loo si na lu mu lu mu jëlee si làmb mu ngi koy delloo si làmb. munoo ngus grand papa Sow ba du indi Modou Lo. grand yéen waa parcelle yëpp bu bu kii leen xoolal mobilisé woo leen yéen ñëpp ngeen ñëw bëreeg Ama Ama daan leen yéen ñëpp ngeen ñëw waa parcelle. mais loolu la Balla Gaye waxoon. ma Sène mi wax na ko fi làmb du loolu. làmb la la koy gars yi di waxee sa xaw ma son lam so son temps ni ñu koy waxee papa daam so sa sola noonu la demee dafa ne la làmb xale nit mënul non làmb xale waay. damaa dégg Ama indi benn slogan boo xam ne gars yi bàyyiwuñ ci xel Mbaye Babacar Ama nee na roi des arènes bi couronne bi ñu koy yor ñëpp dégradé lañ doon wattu moo tax mu yomb teggeeku moom mu ñu wattu ndal pour mu loose. <laughs> parce que ah, xam nga karaw daa bëri lu muy téye xam ah. nga karaw daa bëri lu muy selul ba wotoon ndel ngelaw gu lay romb sa na sa waay watu na na li si xam na li si karaw yàlla booy sangu si sens <laughs> karaw day am lu def si bopp nit ah. mm-hmm. mais di ko ñaanal jàmm nag di ko di wax ni mbër gars yi bëgg nañ ko de parce que man jooy Modou Lo jooyloo na ma première combat mook Eumeu Sène waxuma la roi bi muy jël bi muy jël roi si moom de bi muy jël roi moom def ma dara mais bi mu koy njëkkat daan laa wax noo jooy naa jooy métti fan laay jooyee Ama Baldé musuma jooyloo si àdduna musu ama musul bëre làmb sama may tiit amul xam nga man du ma dem làmb di tiit man mi di bëre man man du ma amee combat du ma du ma xam yow sama xel du nekk sax si ay yooyu noonu mais ama buy bëre laa la wax du ma sax tiit te yeneen bëri ñu bëri may tiit Amadou Amadou mbër yi de ama mbër la mbër waada. donc comme xanaa mu daan am si. non si am ay ñetti ku ñeenti ku waaw loolu moom gis naa ko ay gaaw ay benn ku ñaari kuu laa la wax di nga ko si dégg. benn ku ñaari mais jàppante ama yow. open press góor droit yi la yow man gisoo entraînement yi ma entraînement fii su ma demee làmb jooju ma def loolu <laughs> bëre laay def de ak xeex yaa may dégg ah moo daax bëre Modou Lo daa mun dara yow Modou Lo mënul bëre li ñu def nii bëre Modou Lo daa mun bëre Modou Lo maanaam xam kañ la lan la nit ku ne da nga koy waxal li mu mën Modou Lo la rankiñ la si bëre doo ko daan doo ma doo ma daan bu ko indee da ngay sonn mais doo ko daan. nga ne sa ku xam Eumeu Sène xam ne daanaan kullu fatlin la fu mu yegg Modou yëpp Modou gis nga ne moo noonu bëri. waaw boo boo foowee nag def loo warut def nag doo daanu su ma la mënoon ñëw ñëw ñëw di la di la jaay li benn maa maa la ëppale li yëpp doo ba daan jeex na Eumeu Sène looloo ko dal ci kon Eumeu moo mën fukki Modou Lo laa la wax ñaari yoon xam nga la ma war a lool heure bi bëreeg moom jox ko lim moom ah sa jabar sax boo ko joxul dépense suba gannaaw suba mu woo la ne la waa sa waaye yow la moo tax kii waaw leneen li si biir na yaa am loolu la. fi nag ci làmb nag. Dimanche en tant que mbër ban message ngay lancé diggante parcelle ak Pikine ci cadre supporter non violence. moom gëw ma ni dina si am parce que promoteur bi jël na si ay matuwaayam xam nga làmb moom organisation la te làmb diiran bi dafa yàgg te waa ji perte na si kon du def luy yàq làmbam. te kaay am wàllu fii combat bi booy Pikine ki gën a ndaw moo ko gën a respecté ki gën a mag moo tax ma ne la lu toll ni bën bën poussé dafa am coow parce que lu yàquwaat nii ñu ne si côté Ama Baldé la yàqoo non Pikine am défaite bu rëy te Pikine mosoo leen dégg suy ñàkk fayda yooyu open presse ba nga fa ñëwee keroog gis nga lu gars yi indi si li fa lu fa daje te lépp Pikine la dëkk lañ nekk ñëpp Pikine lañ jógee coow déggoo ko fa déggoo fa benn violence amul problème ñëpp waat nañ si jàmm. jour làmb ja waa parcelle nañ ñoo ñu dalal leen parce que jamono ji kuy bëree si làmb ñun ñoo lay dalal même ñun buñ bëriwul. waaw même déggoo li la ku ñëw fi ñoo lay dalal man bu ma bëriwul Pikine kenn bëriwul ñeneen équipe mbëri di bëri ñun ñoo leen dalal ndax man lamb ju am fi damay dem muy làmb jeudi vendredi làmb ju am damay dagg fi sama entraînement dem seetaan toog nii nag jël sama temps di seetaan barki Serigne. kon à domicile la. làmb ji nekk nekk Demba waa Demba Diop dañ daan génni seen i kër teg seen caayaan nii rek làmb yi sàjji rek ñu dem seetaan loolu moo ñu dal loolu moo dal jamono ji amitié yi gis nga bi fay muurlure dóor uma seen miy nelaw mais noonu la fa demee woon rek roi bi dafa seen bunt seen bunt koñ lañ ko bëree woon seen bunt koñ lañ koy bëree waatee mu jolaat ko lii la bàyyi si xel de li ma lay wax seen koñ lañ ko ñàkkee woon voilà léegi. jeex na du maxi jumelage lii de déggoo aller retour. dañoo am aller bi ñun ñoo ñàkkoon. retour bi waa ñun ñoo jeex na nii la demee. non loolu nit nit mënu si daraal loolu loolu loolu waaye loolu caaw seen koñ la woon fii seen koñ la amitié la woon bële mu dóor ñu nelaw bii tamit pigin la <laughs> non duñ ko dóor ne parce que buñ ko dóoree ndax moo loo gëmm ne booy dinañ ñëw booy maa leen wax ñëw leen ngeen supporté waa ji gëmuñ ñëw supporté ko te pour naa billaay problème du am booy Pikine ñëpp ñëpp préparé seen ticket nii booy xoolal seen 10 000 dañuy ut 10 000 semaine bi nii am 10 000 dem dénk ko borom Pikine bi moom pour waa ji la moom. non pour waa ji la. billaahi booy jaral na duñ dékk duñu añ 10 000 dem nañ ko dénk borom Pikine bi gis naa ko benn yoon du ñaar yoon sama booy génne di ut lu jënd ba am 10 000 dem denc ko borom Pikine bi dootuñu ko laalaat bu ñu xëyoon amuñu luñ dékkee sax dañ koy muñ ba añ ñu dem jeex nañ non doon de waaye yow combat bi dafa ñoo jaral de. ay eh, xale yu ndaw ngay gis ñu watu ndel man sama koñ boo yëpp wat nañ ndel non amb non amb moo xam rek <laughs> moo ma jox waaw